am di doomu Sénégal boobu nga xam te ne dañ ko door bal fital mu faatu ci Amérique ajjuma bi ñu génn njabootam rawatina nag yaayam nekk ci na jamono ji waaye nag méttitlu na li nga ñàkk taxawaay kilifa yaak li mu leen déggul gannaaw li nga xam te ne xew na faat gi ñu faat doomam reportage Amadou Sababa li ma dégg rek mooy sa doom boom nañ loolu laa dégg am ci leneen. le huit waa na ma. le neuf maa ngi koy woo sax jotuma. fajaxu samedi bi soxna Fatim Diaw dootu ko fàtte benn yoon moom moomee nekk way juru a Samb moom mi nga xam ne dañ koo boom ca Atlanta fële ci États-Unis ca guddi ajuma jàpp samedi. boo amee njaboot ñu nekk àll bi. nekk Atlanta. nga tëdd ba guddi ba fajar ñu woo la ne fetal nañ ko. kon loolu dinaa métti noonu laa yëg mbir mi loolu rek ma xëy nag ànd ak samay mbokk ak samay kii ñu toog fii defale ma ko wante nag sant jullit yëpp ak taalibe yëpp. gannaaw ba xabaar bi jibee këram gi nekk ci liberté 1 nit ñaa ngi fay di ñëw ngir jaale. ci jamono yoo xam ne na sax mbas mi wàcc fii ci Sénégal maanaam coronavirus muy wéy di nangu njaal yi ci téléphone bi lenn rek moo ko ci metti gisul benn autorité gouvernement bu Sénégal bu taxawu wala sax woo ko téléphone mu metti lu ko lool. ñu ngi woo damaa wuyu ba mënatumaa wuyu kon damay sant yàlla. dégguma dara man xamaguma dara. damaa jëlale gouvernement Sénégal mais association yi nekk foofu te dégguma ci kenn ku ma ne nangam. ah na nag boo investir fële di nga ci xam dara. waaye soxna Fatim communauté murit bi nga xam ne ne moo nekk ca Atlanta ci seen taxawaay ba ñu mën a jébbal doomam bi ki nga xam ne ne mooy borom bi waa daayira ba Ibadu Rahman nga xam ne waa kër sëñ Tuubaa yi ñoo leen fasam ñu taxaw yu mel nii ñoom ñëpp ñu ànd ak fondation bi julli di taxaw sama doom bañ jël sama doom teg ko ci seen loxo ñu jullee ko defar ko yóbbu ko ci cimetière ñu ñaanal Bara Samb mi ngi amoon ci lu tolloog fanweeri at ak benn te doon dund fële ca Atlanta wi famille bii di xam la ne xamaguñ ci dara Amadou Sabax Ba ay doomu saga doomu Sénégal daga tembe ca Ross Mauritanie ndax liñ tëj frontière bi ay fan a ngi nii ñu nekk foofu mënuñoo dem mënuñoo dikk nee neen nag jafe-jafe tel la ñuy dund jamono ji tax sax ñu sàkku ci kilifa yi ñu daal di leen di dimbali. Euh, Gora Khouma jiite euh, union des transporteurs routiers du Sénégal di genn ci syndicat transporteur di ñaawlu doxalinu yenn euh, transporteurs yi rawatina ñi di borom camions yi nee neen nag dañuy yëpp nag yoon may leen ko tax sax muy sàkku ci di takk der yi. yi ñu daal di jëflante ko ñooñu le député Abdoul Aziz Diop député ci assemblée nationale bëgg nag ñu daal di euh, bor bu réew Afrique yi daal di leen koy wàññil euh, si loolu sax moom député bi gis na ne FMI ak banque mondiale war nañ tamit jàppale réew Afrique yi ngeen ñu gën a mën a xeex ak jàngoro ji di coronavirus jàngoro jooju sax la ñuy jeexale ak tolluwaay wi euh, premier ministre bu Grande-Bretagne Angleterre kon di Boris Johnson génn hôpital démb moom nag dafa sonnoon nekkoon soins intensifs depuis semaine ba jàngoro ji di Covid 19 waaye mujj na tane na ba génn démb jamono jooj nag Italie démb euh, ñeenti téeméer nit ak fanweer ak benn ñoo faatu euh, muy 431 di nag lu yees euh, li amoon laata loolu ndaxte bërki démb 619 di juróom-benn téeméer ak fukk ak juróom-ñeent doomu aadama ñoo ñàkkoon seen bakkan kon ni mu ko démb bi nag di ñeenti téeméer ak fanweer ak benn nekk lim bi yees kon bi gën ndaw foofa ci Italie depuis fukki fan ak juróom-ñeent weeru mars bi ñu weesu. mu nekkoon xibaar yi ci gàttal euh, El Hadj Ndiogou Diène àndoon ak Abdou euh, Aliou Ba ci machine bi 7 xibaar yi ci France ak Youssouf Bodian 8 heures ngeen ci ànd ak El Hadj Assane Gueye jaajëf ñeen doog njabootu ndem si yàlla Bara Samb di ndaw li nga xamante dana ko boom ca États-Unis ajuma ji nu génn njaboot gu am tiis ak naqar ci liberté 1 fii ci Ndakaaru rawatina yaay jëm moom Bara Samb la amulu sabax ba dajeel. li ma dégg rek mooy sa doom. boom nañ ko loolu laa dégg ama ci leneen le huit woo na ma le neuf maa ngi koy wax sa jotuma fajaxu samedi bi soxna Fatim Diaw dootu ko fàtte benn yoon moom moomee nekk way juru baax a samb moom mi nga xam ne dañ koo boom ca Atlanta fële ca États-Unis ca guddi ajuma jàpp samedi waa meeg njaboot ñu nekk ci àll bi nekk Atlanta nga tëdd ba guddi ba fajar ñu woo la ne katal nañ ko kon loolu dinaa métti noonu laa yëga mbir mi loolu rek ma xëy nag ànd ak samay mbokk ak samay kii ñu toog fii defale ma ko wante nag sant jullit ak taalibe yëpp ba xabaar bi jibee këram gi nekk ci liberté ñaa ngi fay wéy di ñëw ngir jaale ci jamono yoo xam ne na sax mbas mi wàcc fii ci Sénégal maanaam coronavirus muy wéy di nangu njaal yi ci téléphone bi lenn rek moo ko ci metti gisul benn autorité gouvernement bu Sénégal bu taxawu wala sax woo ko téléphone mu metti mettitlu ko lool. ñu ngi woo damaa a ba mënatumaa wuyu kon damay sant yàlla. dégguma dara man xamaguma dara. damaa jëlale gouvernement Sénégal mais association si nekk foofu dégguma ci kenn ku ma ne nangam. Ah, waaw xëy na nag boo investir fële di nga ci xam dara waaw. waaye soxna Fatim Diaw mi ngi sant bu baax communauté Mouride bi nga xam ne ne ba ñu mën a jébbal doomam bi ki nga xam ne ne mooy borom bi. waa daayira ba Ibadu Rahman nga xam ne waa kër Sëñ Tuubaa yi ñoo leen fasam ñu taxaw yu mel nii ñoom ñëpp ñu ànd julli ji taxaw sama doom bañ jël sama doom teg seen loxo ñu ko defar ko yóbbu ko ci cimetière ñu ñaanal ko. Bara Samb mi ngi amoon ci lu tolloog fanweeri at ak benn te doon dund fële ca Atlanta ca États-Unis ak magam bii di Mor Ngom ñu koy woowee vieux fi mu toll nii nag lépp li nga xam ne ne moo soxal enquête wi famille bi di xam la ne xamaguñ ci dara. sa baax jërëjëf ñuy mastaw bu baax njaboot gi mastaw it doomu Sénégal yi nga xamante ni ab diire ngi ñu daal di euh, ngiro ca xosu Mauritanie mënuñu ñibbi si seen réew mi nu fekk baax euh, nekk fa coono bu mitti lool bu du sañoon nguur gi leen xel ci seen kàddu Oumar Mbaye nga bëccëg gi liñ doon def mooy dañ daan nekk bi affaire bi doo commencé nii ñuy cotiser par deux cent deux cent dem dajaloo fenn daal di togg añ bu guddigee ñu daal di def cent cent daal di dajaloo les gars yi dem nañ ba tellement. la consternation le choc euh, chez la famille de Bara euh, Samb il s'agit de ce jeune Sénégalais de 31 ans tué vendredi soir par bal aux États-Unis à Atlanta euh, sa mère euh, meurtrie euh, déplore l'absence des autorités sur la mort de son fils reportage Amadou Saba Ba. li ma dégg rek mooy sa doom boom nañ ko loolu laa dégg amu ci leneen. le huit woo na ma. le neuf maa ngi koy woo sa jotuma. un réveil difficile pour Sokhna Fatim Diaw mère de Barassamb sauvagement tuée à Atlanta aux États-Unis dans la nuit de vendredi à samedi. waaw man njaboot ñu nekk ci bi nekk Atlanta. si tu as des enfants qui vivent aux États-Unis un bon matin on t'appelle euh, au téléphone pour t'annoncer la mort atroce d'un d'entre eux c'est ainsi que j'ai eu la nouvelle je remercie Depuis l'annonce de la nouvelle, la maison 6 à Liberté 1 ne désemplit pas dans un contexte de coronavirus. Les téléphones ne s'arrêtent pas, seule fausse note, aucune autorité gouvernementale n'est présente, même pas un coup de fil, déplore la dame. Je reçois des appels pour des condoléances, mais aucun membre du gouvernement du Sénégal n'est venu ici. C'est pareil pour les associations sénégalaises. sénégalaise aux États-Unis il n'y a que le daïra des Mourides d'Atlanta qui a assisté moo def. am naa ko diaspora bi daal taxaw nañu sama doom. waaye fii Sénégal moom kenn ñëw fii autorité du Sénégal kay gis ma kenn. Cependant, Sokhna Fatim Thiam remercie la communauté mouride d'Atlanta pour son engagement face à cette situation malheureuse. nga xam ne waa kër Sëñ Touba yi. Ils ont tout fait, récupérer le corps et l'enterrer comme le veut la religion musulmane. Alhamdulillah. yóbbu ko ci cimetière ñu ñaanal. était âgé de ans et vivait à Atlanta aux États-Unis avec son grand frère Morgom, dit Pour le moment, aucune information sur l'enquête concernant l'assassinat du jeune Sénégalais. Hamadou Sabah des Sénégalais sont bloqués à Rosso Mauritanie depuis des jours. Ils sont dans la galère, disent-ils, les autorités. Goro le secrétaire général de l'Union des transporteurs routiers du Sénégal, s'insurge contre le comportement de certains de ses camarades. Et selon lui, il brave l'interdiction de transport interurbain. Euh, les camionneurs sont notamment indexés. Il demande aux forces de sécurité de les traquer. Le de la dette des pays africains euh, selon le lui. Euh, li ma dégg rek mooy sa doom boom nañ loolu laa dégg xam ci leneen. loolu la biir le neuf maa ngi koy woo sax jotuma. fajaru sandi bi soxna Fatim Diaw dootu ko fàtte benn yoon moom moomee nekk waajuru Bara Samb moom mi nga xam ne dañ koo boom ca Atlanta fële ci États-Unis ca guddig àjjuma jàpp samedi. boo amee njaboot ñu nekk ci àll bi. nekk Atlanta nga tëdd ba guddi ba fajar ñu woo la ne fetal nañ ko kon loolu dinaa métti noonu laa yëg mbir mi. loolu rek ma xëy nag ànd ak samay mbokk ak samay kii ñu toog fii defale ma ko wante nag sant jullit yëpp ak taalibe yëpp. gannaaw ba xabaar bi bi jibee këram gi nekk ci liberté 1 nit ñaa ngi wéy di ñëw ngir jaale ci jamono yoo xam ne na sax mbas mi wàcc fii ci Sénégal maanaam coronavirus muy wéy di nangu njaal yi ci téléphone bi lenn rek moo ko ci metti gisul benn autorité gouvernement bu Sénégal bu taxawu wala sax woo ko téléphone mu metti lu ko lool. ñu ngi woo damaa wuyu ba mënatumaa wuyu kon damay sant yàlla. dégguma dara man xamaguma dara. damaa jëlale gouvernement Sénégal mais ma ah, na nag boo investir fële di nga ci xam daan waaw. waaye soxna Fatim Diaw mi ngi sant bu baax communauté Mouride bi nga xam ne ne moo nekk ca Atlanta ci seen taxawaay ba ñu mën a jébbal doomam bi ki nga xam ne ne mooy borom bi. waa daayira ba Ibadu Rahman nga xam ne waa kër Sëñ Tuubaa yi ñoo leen fasam ñu taxaw yu mel nii ñoom ñëpp ñu ànd ak fondation bi julli di taxaw sama doom bañ jël sama doom teg ko ci seen loxo ñu jullee ko defar ko yóbbu ko ci cimetière ñu ñaanal. Bara Samb mi ngi amoon ci lu tolloog fanweeri at ak benn te doon dund fële ca Atlanta ca États-Unis ak magam bii di Mor ngoom ñu koy woowee vieux fi mu toll nii nag lépp li nga xam ne ne moo soxal enquête yi famille bi di xam la ne xamaguñ ci dara